age mën nañu wax loolu dañuy tënku wala dañuy far ba mu ba ba ba ñëpp xam ko euh, donc est-ce que également li xew lépp du ñun suñu naataango taskatu xabaar yi te ñoo ko àggal fii wala régime bi régime bi fi nekk actuellement la parce dañu am nguur gu nanguwul nit ki di joxe xalaatam di dem au fond des choses di génne fii xisan di ko wokk lii am nii ci wàllu média moo fi mus di am euh, par contre sax dafa xaw a gën a woyof léegi parce que euh, Birahim Touré Mansour Diop Moustapha Diop Babacar Touré Pape Alé Niang da ngay dañuy am benn une heure de temps ci benn télévision wala benn rajo wala benn benn benn benn interview wala benn live alors bu njëkk journaliste yi pour critiquer la yow dañ doon bind benn livre léegi gars yi amatuñu sax jot bi bind livre parce que dañ naa nit ñi nit ñi liiratuñu wala boo bindee benn livre daañu ko topp ba xam fan nga jëlee info yi boo bennee boo génnee benn kayit cest dikk yoon yoon doo ko jël solal ko mbubb wala nga retaillé ko ci saa bu la neexee nga nga nga sol ko contre kenn gis nga li am nii mënut a tax média yokkat mënut a tax média dellu gannaaw mënut a tee média continuer def li mu doon def Euh, journaliste boo ko nee boo ko nee da ko yóbbu ci yoon par diffamation dama la wax lu leer dañ ko clamé pour diffamation moo tax ñu porte ko plainte ñu teg daan kaw ci kaw journaliste bi ci injure publique dañu la porter plainte ndax diffamation ñu daan la injure publique gis nga loolu est-ce que est-ce que est-ce que gis nga loolu est-ce que loolu yan na maanaa yow kii la kalaamee ne da nga ko diffamé tribunal daan la ni yow da nga saaga ci biti pour wax la ni souvent dañuy sax yóbbu nit ñi ci yoon te ñu duñu sax xam cëslaay bi mais gis nga gis nga gis nga méccam tasum xibaar mënuñoo fexe ba soppi ko démb nga maa maa ngi la koy wax yi mu àndal éditorial kenn mënu ko fee génne chronique kenn mënu ko fee génne analyse kenn mënu ko fee génne commentaire kenn mënu ko fee génne yooyu dafa ànd ak méccam tasum xibaar nguur gi ku leen di dee ne wax ni nañu may journalistes yi afia nañu bàyyi catégoriser journalistes yi tey da ngay xool da nga naan Moustapha ñu ne la fii la féete Mansour Diop fii la féete Birahim Diop fii euh, Touré fii la féete Pape Alé Niang nit ñi féete woo ñu fenn seen seen ŋàbbin lu ci doxul la ñuy dénoncé. nit ñi féetuwuñu fenn ci wàllu politique xam nga la moo tax. ñun ak ñoom ñoo bokk ci Mame Mbaye Niang dafa ma mag man damaa mag est-ce que est-ce que au moins fitu dem politique comme ni mu politiqué euh, ministre de la jeunesse mu tudd euh, Pape Malick Ndour maa ko mag est-ce que am na fitu dem def politique ma bëgg a politique te au fitam nit ñi defuñu politique ku ne da am benn métier. bu opté nekk ci nañu bàyyi bu ni bu ñu safaanu nit ñi xalaat. Mm-hmm. askan ne leen ay waa Pastef ak ay waa PDS ay waa gëm sa bopp ak nit ñi faruñu fenn ci wàllu politique mais mënuñoo fexe ba du ñu dénoncer ku bëgg a def investigation di nga def investigation ku bëgg a def euh, dem def reportage sur le terrain nga def ko nañu bàyyi presque bi ci wàllu jàmm nañu bàyyi nit ñi def seen liggéey ci ni mu jaadoo bund xataal gi itam na dakk très pour lu soxal mbirub euh, Moustapha Diop dañuy fàttali ni Moustapha Diop est d'abord directeur de Walf TV te li ñu wax mooy dañ ko convoqué à la police centrale de Dakar ci mbirum Pape Ndiaye parce que dafa am délégation judiciaire dafa mel ni tey ñu woo Birahim Touré ne parce que Mansour Diop mi nga xamee ni bokk nga ci sa euh, ci sa kër euh, am na lu mu def mais yow en tant que son responsable nekk directeur bi am nga euh, pour loo ñu war a mën a indil ci lu mën a indil ñu ci lu leer li nga xamee ni moom la ñu toppee Mansour wala moom allemand en tant que directeur euh, bu euh, euh, bu kër gi Moustapha Diop ñu convoqué ko donc ci sens boobu lu soxal mbiru Babacar Touré Frédéric Nappel la tudd xaw ma Nappel nekkoon policier moom moo porté at plainte Ousmane Sonko moom moo porté plainte Babacar Touré quel est le projet c'est moi mon interrogation <laughs> quel est le projet ci lu soxal Nappel moomu nga xamee ni jóge na ci Sonko porté na ko plainte am na beneen plainte kon bu tegu ci kaw du sonkoo ci mbirum ay diffamation yooyu tey mu porté waat plainte euh, kii di Babacar Touré et surtout dans la convocation wala ci lu soxal mbiru Babacar Touré moomu bu Kéwoulo lañ koy laaj mooy euh, dafa am outrage à agent kon maanaam ba muy wax ak Napel Napel policier la woon wala gendarme la woon wala en tout cas homme de tenue la woon nekkatu ko ci li ma jot a jàngat wala lu ma jot a dégg léegi kañ la woon lu tax mu ñëw tey ci wàllu boobu est-ce que c'est une chasse aux journalistes je ne pense pas que nguur gi ci lu soxal mbirub journaliste mu am chasse aux journalistes bu ci am mais je vais mettre dos à dos nguur gi wala ay service su nguur gi ak journalistes yi également te correct fàttali nga ko Simpix également fàttali na ko c'est pas parce que je suis journaliste que je peux me permettre de tout dire am na ñu ñu woo tey yóbbu leen ci kaso wala ñu def leen garde à vue wala mandat de dépôt mais du métier journaliste bi dañoo mbubboo métier journaliste bi. mais tey di wax ay wàllug ay nangam kaawu nangam di dugg ci ay këru Mansour di lijjanti loo xamee ni mais bàmmeelu biiru Mansour jóob la mais kooku est-ce que ñëw dinaa ñëw di xeex parce que am na euh, yenn ci ay tuuma yoo xam ne teg nga ko ay ay sénégalais ñu am doom am yaay am jabar am jëkkër nga génne ko ci ay réseaux sociaux wala yeneen ak yeneen ñu ne noonu comme woo nañ ko rek wala kii nañ ko donc ne journaliste yëpp jóg taxaw différent c'est pas parce que tu es journaliste que tu te permets ou peut te permettre de dire lu la neex également je ne parle pas de ces deux cas je ne parle pas de ces deux cas on verra nag parce que convoquer ne veut pas dire arrêter mm-hmm. dañ laa convoqué <laughs> da nga dem wuy ji ñu poser les questions laaj la nangam nangam fa muy mujjee nag à partir de ce moment peut-être on pourra avoir un, un autre euh, commentaire sur euh, après la convocation parce que ñaar yi lañ convoqué ñu xaar fa ñuy mujjee. d'accord ñu xaar kon Birame merci euh, Birame mu nekkoon li nga xam moo gën a fas ci euh, yéen kaay yi ñu lay jaajëfal waaxi ci ñu jàll ci beneen rubrique muy lu euh, d'abord avant ñu ñëw ci rubrique au secours ak Birame ñu xool tey 26 février ci datu tey bi lan moo xewoon mu jëm ci wàllum éphéméride ak Alamine Senghor. éphéméride lan leen mën a jàpp ni moo xewoon tey ci datu bi. voilà ca la la ñuy daal di dabbale ak euh, li nga xamante ne moom mooy euh, ñaar fukki fan ak euh, benn juróom-benn ngeen baal ma ci weerum avril atum ñu daal di fàtte fàttaliku cérémonie d'ouverture fii ci Dakar bu forum mondial de l'éducation mu nekk nag loo xamante ne fii lañ ko amaloon ci mbirum UNESCO muy nag lu am solo loo xamante ne kon lu ton ni téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ay député yoo xamante ne wala sax ay njiitu réew yoo xamante ne nag xam-xam wala sax yëngu nañu ci wàllum njàng bi ak njàngale bi ci Dakar ngir daal di càmbar li nga xam ne moom mooy war a nekk taxawaayu euh, réewu Afrique euh, ci lu jëm nag ci wàllum njàng bi ak njàngale bi ci biir réew bu euh, Sénégal wala sax ci peggub Afrique yëpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril atum 1980 Amadou Clédor Sall daal di nekk li nga xam ne nag moom mooy kon maire bu Dakar ñu kon daal di koy tàbb foofule mu daal di wuutu Lamine Diack bi nga xamante ne moom moo fa nekkoon diggante ba quatre-vingt kon ñaari at mu daal di def foofu le kon euh, ki di Amadou Clédor Sall moo koy daal di wutu euh, ci euh, bopp mairie bu Dakar beneen dat boo xamante ne daañu xool la nga xamante moom moo xewoon ci bésub ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril atum